am mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone Grand Yoff dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène Junior mi ta ndaw ñi dinañ ko boole ak jàkkaarloo ak Pape Yékini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fu ak buusit te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro de ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu cinquième combat del préparé diggante na baax na mi noonu parisien noonu bu faas combat pël bu rafet bi kalso nee na sang katu néew la nee na papaam day sang néew ak ay nijaay moom yàgg yàgg day sangi néew <laughs> Paris Tech Culture Kalso mi daa mel ni génn na ci combat bi de Kalso Calcio ak Parisien Calcio nga ne le di daw Calcio Parisien Parisien ngi ni taxaw Parisien moo gën a fere de Parisien Calcio Kaljo Parisien combat bu neex maa lay taxal de ngi noonu sa ginnaaw Kaljo Parisien wuyul Parisien wuyul arbitre Leewtoo nee na fukki waajur ak benn yow ana kee wuyul laaj na ay ci <laughs> Calcio neex bi Calcio sàngkatu néew bi à gauche Calcio borom jinjeer ji eh Parisien door na ko Calcio borom mètre 7 mètre percali <laughs> Parisien day riñaan de Parisien Fass Calcio door dooraat Parisien cokkaasaat na Parisien maa fekk Fass muy préparé moog Baara Ndiaye ak Serigne Ndiaye 2 ak général ak dictionnaire ak Boy Gueye waaye Calcio mi maa ko fekk Gàmbi Parisien door na ko ana luy xew eh Parisien ngi xeex de borom jinjeer ji defagul dara borom 7 mètre percali calcio defagoo dara wàcc na da koo bëgg a song de mbaa doo song ñu <laughs> eh, kàddu waaw ah nekku fi de xaw ma na xaw ma mu dem ba ca biir sens jël tànk jël tànk parisien ñime na ko de ey Calcio ka eh Calcio day ngàdd Calcio wàcc na mbaa doo wàcc toog na nga defoon ca Instagram <laughs> ey ñime na ko de parisien dafa décider rak ngàdd rak songo nañ attention da koy daan nee naa la Calcio mi tànk bi dafa mas a dam gis nga tànk comme tànku Tapha bi daa am problème benn tànk bi tànk gauche bi daa am problème benn avertissement arbitre siflé waat na Parisien door na Parisien Calcio Calcio ngi wàcc Calcio ngi nat Ardo te diggante Calcio ak Parisien Calcio moo nekk à gauche Parisien moo Ardo ñëw na bismillah Sar laatin fatin door nañ laatin fatin door nañ bisimilah sarbone sar sarbone eh bisimilah sarbone fayu na ma door rak rak rak songu na ko pakete na ko daan na ko daan na ko de xaw ma ca biti ar bi nee na waaye Calcio bët bi neewi na Calcio bët bi neewi na Calcio Parisien dina eh lay lay la la Parisien Parisien ngi rag de dooraat na ko eh Ardo lay lay la bisimilah Sarbonne dem na Ardo 7 mètres percale dem na Ardo R4 be teppeeku ardo si la na da koy door ay sama nday ay waay day bari gaañ ko de li muy door man maa ngi dégg fi muy dal jàpp na ko jàpp na ko laay parisien ngi xeex parisien waay waaye doomu faas bi waay calcio parisien attention ana luy xew ay dooraat ci kanam gi de Calcio Parisien dooraat na ko ci kanam bi Calcio Parisien waaye ñiy dugg si ñooy ñan xale yi dugg si ñooy ñan dooraat na ci kanam bi Parisien tey mu gaañ Calcio de Calcio tey bëre Calcio bëreel boo ko jàpp de riñaan na mbaa duñ tey pare Mohamed Ardo nee na Calcio mën a tut yaa ngi gis R4 bi noonu yaa ngi gis kanam gi noonu am na ay gaañu gaañu am na ay blessures yu métti Mohamed 7 mètres yi percal yi xanaa ñëwut Mohamed Petit Cola yi xanaa ñëwut bisimilah sar bo côté xam nga Cheikh Bara Ndiaye Mor gaa yëpp dama kontaan ñoom dañ ma logé Colobane appartement boo xam ne kenn du dugg suba ak ngoon tax nga xeex bi kese non dama dama war a wane sama bopp nee naa la bulldozer laa war a soxla moom laa war a ci biir bëre bi yow xeex bi rek nga bëggoon moom. parce que Perkata daf ma ne poids lourd la. dee ko par benn gos gos te déchargé woo nga soog a ñëw song ko euh, moom fa laa sax mais comme temps bi dafa xaw a te moom mën dem na mënatu ko moo tax jox ma mais dama doon ñëw sax bëri si koom. ah mais kii yow. ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone Grand Yoff dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène Junior ndaw ñi ko boole ak ki nga xamante ne nii moom mooy Kalmu dina fa jàkkaarloo ak Pape Thiam ne dina fa jàkkaarloo ak Pape Yékini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante wulli ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fu ak buusit te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène nationale dina neex te dina yëngu